dañuy euh, dooree par li nga xamante ne daanaka moom moo tëj euh, semaine wi nga xamante ni moom la ñu euh, weesu concerné kile di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang balaa sax ñiy ñëw ci coow bi am ci seen diggante Cheikh Yérim ci njeextalu ayubés bi ñu weesu am audio yoo xamante ne dafa génn audio yoo xamante ne nee nañu Mame Mbaye Niang moo déglu nga ko ban analyse nga ci def. waaw audio yi nag li ma ci jàngat mooy il faut d'abord ñu vérifier ba xam Mame Mbaye Niang ci boppam moo wax loolu. parce que aussi am na logiciel yoo xam ni mën naa toppandoo baatu nit mhm. loolu la ñu war a njëkk a vérifier bu loolu weesoo li ñu war vérifier mooy mamay bu ni wax koy wax est ce que dañ ko yabal mhm. pour mu waxee noonu pour amai a amee information ci ki doon waxal mhm. wala déet bo vérifier loolu ba pare que ni kenn yabalu ko moom moo doon wax ci coobare boppam ni <laughs> bu doon pour régime communiste dañ koy pendre. Mhm. mais donc. mais mais gëmoo véracité. non non D'abord, il faut parce que xam nga nak aussi tay man nga jël batu nit. dugal ko ci logiciel yo xamni ne lu la neex nga wax loko c'est clair lolu amna. Mhm. donc il faut d'abord vérifier véracité audio mais lolu luñu ñu vérifier la hein. mhm. euh, cybercriminalité bi rek bo yobone audio yi léegi dinañ la wax carrément kan moko ko voilà bo vérifier lolu ba pare. nga vérifier ba xam parce que mamay Niang mën na wax lool fekk dañ ko yoni pour mu wax ko parce que mhm. des fois mën nga dem wax ak sa adversaire politique jox ko confiance sottee ko ci mom pour permettre mu wax nga xam ay plan mhm. lool dafa mëna a mhm. bon lool nak li ci xawa a lënt rek moy est ce que pour wax lool jar na ngay dem bay nettali li xew ci palais bi <laughs> parce que lool aussi benen affaire waaw mais en tout cas dal amna ñaari phase vérification yo xamni faawu ñu ñu ñu ñu ñu saytu ko ba mu leer bu leeree naññ nag que ni non seulement baatu Mame la waaye wax ji moo ko wax mhm. bu doon deuxième communiste je koy <laughs> alors euh, je l'ai dit tantôt coow dox ci euh, diggante ak euh, Ousmane Sonko. Mhm. ñu waroon ñoom ñaar nous wuy ji tribunal cette fois-ci nous dem mais ñu gis ni Ousmane Sonko bi muy nous këram. Mhm. dañu ko dañu vitre otom dugal ko ci oto nous avons ne dañu yóbbu nañu ko ba ba biir këram mu jur avons lu bari également ban analyse analyse ma simple action bi lu violent la maanaam boo xoolee yëf ni mu demee lu violent la. Mhm. maanaam nit ki toog nga toj faaru otom mi ngi koy toj affaire di wadd ci kawam lu lu violent violent xam nañu koy waxee ci wolof waaye daal image moom. voilà lu lu lu kii la daal. Mhm. maanaam luy luy dal ci bëtu nit la. maintenant nag dama gis ni loolu dafa am lu mu créer même ci biir Pastef. Mhm. waaw parce xam nga man. waa nag lu ñu wax ak lu ñu bind dama koy dama koy xool. waaw parce que ñoom moom xam nga man dañuy dañuy wax samay wax te duñ <laughs> ma liir. ñoom it duñ <laughs> ñoom sax dañuy wax samay wax duñ ma liir duñ ma xool. Mhm. man nag dama leen di liir di leen xool. Mhm. dama gis ni bi loolu amee dafa créer drame ci biir Pastef. ah bon waaw ñiy bind li non dafa war a def lii ñii ni non waruñu abandonné leader bi nii ñii ni voilà xam nga. manam mu indi coow lu bare bare bari ci Pastef ñii ni non non non non ay biram ci lay job ni ñi ngi tok fi su défendre leader bi xolal waji biñ koy jël mom il était seul mom rek mo nek ah ñii ni gis nga allié yi ñom ñi ngi xaar ñu faagaagal Ousmane Sonko pour ñu remplacer bref. mais psychodrame bobu luñ mëna comprendre xam nga lu tax. parce que c'est la première fois depuis mars 2021 mhm. Ousmane Sonko ñu ñëw. jële ko ci otom manimultaar yi dugal ko ci beneen otom yóbbu ko këram xam nga ki la jële sa oto mhm. yóbbu la ba sa kër bàyyi yóbbu la fa bu la bëggoon yóbbu Rebeuss yóbbu la fa bu la bëggoon yóbbu Kédougou yóbbu la fa mhm. donc réalité boobu nga xam ni waa Pastef teg nañ ci seen loxo mhm. loolu moo waral wax xam nga ma loolu nag dañ jàng réalité boobu ñu confronté ko ak gasta gatsa

je bah, pense que loolu moo indi coow li ci c'est normal d'ailleurs mhm. parce que man su ma bokkoon Pastef honnêtement loolu xew noonu daf may interpellé parce que daf may wan ni ndekete sama leader malgré wax ji li baré, baré, baré, baree il est à la portée du pouvoir mhm. maanaam pouvoir bi mën na ko teg loxo donc loolu c'est normal que acte boobu bu amee ak violence bi mu amee encore une fois mhm. parce que ñëw fekk nit ci oto bi nga taj oto bi forcer oto bi génne ko da c'était c'est violent. Mhm. waaw loolu c'est normal que ñi nga xam ne ñoo gëm Ousmane Sonko ak projet am affaire bi heurte leen. c'est Mohamed alors merci Khady loolu coow la diggante Ousmane Sonko ak euh, euh, li fi xewoon mhm. waaye sa livre bi it coow la ndax euh, jot ci gëstu tuuti wax na ci diggante nit ak nit wax na ci diggante ki nga ko jagleel muy le président Macky Sall muy li nga sax Macky Sall face à l'histoire bu mu génnee ba léegi également réaction yi parce que da nga ci interpellé aussi ay nit mhm. coow li ci cour déjà première question njàngat bi ngay def ci euh, tolle bu mu def autour euh, ginnaaw bu mu génnee ba léegi. amul dara lu xew ginnaaw génn livre bi lu ma bett amul amul dara lu ma ci bett. Mm-hmm. ndax avant livre bi di génn dama def benn documentaire ci documentaire bi maa ngi ciy wax ni livre bu génnee nii ak nii lay demee dama ni leen dañuy bàyyi li ma wax na le ñëw ci man sama bopp te loolu moo am xam nga lu tax parce que li ma wax dafa naqaree dindi livre bi du début à la fin li ma bind yépp ci document laa ko bindi donc nit ñi du ñu débat mukk mukk mukk ci li nekk ci livre bi déedéet parce que loolu day jafe lool li yomb mooy Cheikh Yérim Seck nii doomu Cheikh Yérim sekk nii jabaru Cheikh Yérim Seck donc loolu bettu ma livre bi aussi réaction yi mu suscité maanaam wax ji intellectuel yi bind état bi bind sénégalais bind ministère de la pêche bind betuma, chroniqueur yi bind ñi d'accord ñi d'accord ñu parce que xamoon naa ni livre bu mel me ma bind ko ci contexte Sénégal tay faaw li am loolu yëpp bettu ma. mais lu tax nga ja lu tax bettu la lu tax mu jàpp nga jàppoon ne boo ko lu tax bettu ma parce que. que boo ko bindee. xam naa la nga doon xalaat. xam naa li nekk ci biir. xam naa Sénégal ni bindoo tey parce que dafa am lu ma bind ci livre benn chapitre bu tudd le nouveau type de sénégalais. nouveau type de sénégalais mooy lan mooy sénégalais bu bees bi nga xam ni moo fi am. te sénégalais boobu dafa am nu mu gisee contradiction dafa am nu mu gisee politique dafa voilà. donc dama dama xam dëkk bi. Hmm. xam réalité bi. xam ni ñu polémique xam lépp xam aussi li nekk ci livre bi parce que livre bi aussi. Hmm. du lu sedd du lu yomb. comme ni ko Alioune Tine waxee seen bombe à fragmentation. Hmm. bombe nag boo ko jëlee sànni ko ci réew. faaw bu amee ay test test faaw mu am ay test test yu la dal. loolu amul problème c'est la règle du jeu man du victime. man acteur la du victime. pas du tout voilà maintenant.

wax ni dañu commandité livre bi wax wax ju bari joo xam ni dara taqewu ci dara laalewu ci ay nit ñu bari ñu ma xam fii ci Sénégal ak ci bitim réew di ma woo di laajte di jaaxle il était normal ma génn pour leeral lii rek laa prévoir woon mhm. mais li ci des lépp lépp lépp lépp amul lu ma ci bett mhm. bu loolu weesoo lan moo tax lii prévoir woon ko te mu am mhm. dama jàng ci wax ji ni lu ci bari ak saaga yeeg yu bon yeeg yëpp maanaam ñun liñ ci jublu woon mooy tere maa wax daal tere maa wax man Cheikh Yérim Seck alors que lépp laa ma a négocier man ci àdduna ba mu des sama liberté man mënuma négocier sama liberté mm-hmm. liñ ma bëgg a tere wax moo tax damay wax ba teppeeku bu ma kenn teelul woon wax du ma wax parce que ndege di tey di càdd la ma doon fekk. tey càdd la ma doon fekk. ma engagement yu am solo. ci lu ma fa war a liggéey loo xam ne nii. xaalis bu bari laa nar a perte nii. mais perte ko toog fii wax ba teppeeku moom mu ko gën parce que du ma négocier sama lebet et puis réew mi man sama maam Cheikh Ibrahima Seck la tudd. bu ñu doon séddale réew mi dañ koy jox wàllam. kenn ëppalewu ma fi. donc damay wax ba teppee mais Cheikh loolu est-ce que liko waral nekul jeexital bi livre bi def moy conséquences yi nga xamné gis nañu ko